شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا مؤسسة دار الاستقامة للتربية والتنمية
هديت قلبي شكرا mbooloo mi di daarul istiqaama mbooloo la muy ko jug lislaam di bu ñu ràññee ci réewum Sénégal ay boroom xam-xam yu ànd ak ay ndaw yu am pastéef bokk benn jubluwaay bokk ngëm-ngëm ñoo ànd di ko taxawu li ëpp ci seeni taxawaay jëm ci diiney lislaam waaye gannaawaluñ mukk lépp lu jëm ci luy suqali askan wi ci seen wàllu dundin ak seen wàllu nekkin الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Euh, yéen mbokku jullit ñi fi teew ñi ngi leen di nuyu nuyoo bi gën fa suñu borom bi subhanahu wa taala mu di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di fas yéene tàmbali euh, li ñu fi dajale tey Euh, ci kaw loolu ñu ngi woo présidente commission féminine bu daaru istiqaama euh, docteur Aïcha Diaw Lo mu teeru ay ganam tatagal leen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ñoo ngi sant yàlla tabaaraka wa taala di ko delloo wàccuwaay bu kowe bi nga xamante ne moom la am ci ay jaamam ci loolu ñoo ngi julli ci sangu sang yi di seydina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajmain ci biir loolu ñoo ngi yëkkati kàddu nuyoo jullit ak moromam jëmale ko ci suñu gan yu tedd yi di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu samay mbokk fii laa samay axawaat samay gan ñu ngi leen di feeñal mbégte mu rëy bi ñu am tey jii di leen eh, ci suñu bés bu mag màgg bi di leen wax ne comme ni ngeen ko xamee ñun fondation Daaru Istixaama suñu taxawaay mooy eh, jéem a tabax société jullit boo xamante ne ni réer dafay neen maanaam ignorance dootu fa am si loolu ci la ñuy organiser ay thèmes de formation comme thème mu tey bii ñuy jéem a euh, jéem a euh, seet seetantal atey fiq yi nga xam ne moo làmboo ak mbooleem euh, deret boo xam ne mu ngi génn ci jigéen kon niñ ko xamee ret ñun ñëpp ne suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ci xadis mu nañu képp ku suñu borom namm ci yow yiiw ñam namm ci yow mbaax daf lay déggloo sa diine kon loolu mooy wane tey importance su thème bi pour bañ a guddal guddal dama leen di bàyyee maîtresse de cérémonie moom mu dugal leen ci programme bi ko defee man leen di yëgal rek encore une fois ne ñu ngi kontaan lool seen teewaay tey di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bi kunna yaa axawaat fii laa asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu
mbokki jullit yi fi teew ñoo ngi muslu ci seytaane di sos suñu wax ci kàddu borom bi subhanahu wa taala waaye di ko sant ndax moom rek moo yeyoo sant sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem bokk na ci sant gi ñu koy sant rek def gi mu ñu def ay doom aadama ndax yàlla moo ko wax teral naa doomu aadama yàlla moo ñu teralee ñu nekk ay mbindeef doomu aadama mu tàggatal ñu lépp loo xam ne moom la bind waaye mu def ñu tamit ay jullit waaye mu def ñu tamit ñoo xam ne dañuy xeeñtu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan nag ci màggaayam mu saxal ñu ci dëgëral ñu ci waaye mu nangu ko ba bis bu ñu daje ak moom ñu am kontante bu mag ak mbégte bu mag di daje ak yéen ci place bu tedd bii di topp wax borom bi subhanahu wa taala ndax moo ne di leen fàttaliku ndax fàttali dafay jëriñ jullit yi mu waxaat ci beneen aaya ne na nekk ci yéen ab kuréel ñoo xam ne dañuy woote jëmee ci borom bi subhaanahu wa taala di digle lu baax di tere lu bon kon ñu ngi koy sant bi ñu yàlla boole ci kuréel boobu ah di leen nuyu nuyu bu gën a tedd nuyu bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala moom la ñu tànnal di wax rek ni jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na ko yàlla wàcce ci kenn ku nekk ci yéen di leen wax tamit bismillah ahlan wa sahlan wa marhaba ñëw ngeen ci seen kër waaye ñëw ngeen tamit ci li ñu bokk mooy diine ju ñu bokk ñun ñëpp ñu war a toog di ko jàng di ko càmbar jamono ju nekk la mu laaj ñu di ca dox ndax xam ngeen ne borom bi subhaanahu wa taala lim ñu wàccee fii ci kaw àdduna daf ñu wàccee ngir ñu jaamu ko tey jaamu gi du mën a mukk sotti wala muy leer lu dul dañoo xam fu ñuy teg suñu tànk ndax doy na misaal rek tey jii kenn ku nekk ci ñoon bi nga jógee sa kër pour ñëw fii boo xamul yoon bi kenn ku ne xam na ne di nga sonn waaye di nga réer waaye di nga ci def ab diggante bu bu bu bu yàgg kon nag comme borom bi subhaanahu wa taala nee na binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma te ñun dañ ko war a jaamu te jaamu googu itam dafa am fu ñu ko war a teg kon bokk na ci li ñu dajale fii ñu xam tamit atte yi nga xam ne si soxna yu tedd yi macha allah nekk sama ñaari côté mooy soxna maam jaara nekk sama côté càmmoñ ak soxna Fatima Touré di suñu doom moom it nekk sama wetu ndejoor ak suñu beneen mbokk be di soxna Xadija Xadisa Aydara moom it di yëngu ci wàllu wér-gi-yaram muy gynécologue bu ko defee moom it lam ci xam ci lu dëppoo ca métier mi nga xam ne si moom la jàng bu ko defee te lépp rek daal di dëppoo ak lislaam bu ko defee incha allah dinañu ko leeralal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أخواتي الكريمات نحييكم بتحية الإسلامية المباركة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نيجي دمبنديكو بروم بي سبحانه وتعالى ديكو نيان مو مسال نيو سي شيطاني di ñaan tamit mu fecc suñu làmmiñ ba kàddu yu ñu fas yéene wax ak yéen mu nekk kàddu yu jariñ kàddu yoo xam ne ci suñu bopp lañ koy njëkkee jëmee ko ci ku nekk ci yéen am nañu mbégte ci bokkeek yéen bëccëgu tey bi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne daarul istiqaama ñu ngi koy taxawal ci wàll bi jigéen ñi farewoo te suñu mbokk suñu xarit suñu soppee doctora Aïcha Diaw jiite ko mu nekk loo xam ni benn tànk la ci liggéeyu daarul istiqaama ndax xam ngeen ne société bi buy dox góor ak jigéen a ko séq kon bu góor ñi rekk bëggee def jigéen ñi defuñu day mel ni kon day laago kon liggéey boobu lu ama am solo la ci lañu nekk waaye mu mel ni ci biir loolu danaa yëkkati samay kàddu bépp boo xam ne kàdduy ziyaar la ak ndénkaane jox ko sama mag soxna Aïcha Mbay ndax yéen nañu yiw ci jotaay bu mel nii moo tax ñu dénk ñu waxtaan wi waaye fa tabaarakallah allahuma laa adur bu fekkoon xam-xam kese la moom dana doy sëkk pour waxtaan ak yéen ci thème bii ndax dafay suñu magu daara duñ ko fàtte benn yoon ba ñuy nekk ci alfalaax di jàng ca primaire ba ca secondaire ba mu jiituñu ci liggéey bi di ñu won yoon wi kon macha allah yaakaar naa ni tey suñu tokkeek moom toog bu ñu bëggee ñemee wax xañ na dañuy dimbandikoo jotaay bi ci moom ngir bu ñu juumee du ñàkk mu mën ñu gàgganti kon ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di am yaakaar incha allah ci waxtaan wi ndax suñu rakk suñu doom mu ngi bi soxna Fatima Abdallah ci li mu war a andi ci wàll wi mu farewoo ak tamit soxna Khadija ci wàll bi nga xam ne tam moom la ñu ko féetale mu jëm ci wàllu santé waaye ma leen di sant yéen ñëpp tamit di jéggaluwaat ci toogaay bu yàgg bi ak xaar bi mu mel ni ginnaaw loolu yëpp yàlla na ko yàlla def muy yiw tànk yi ngeen fi ñëwee temps bi ngeen fi def ci toogaay bi ak tànk yi ngeen di delloo yàlla na yàlla dajale lépp muy yiw mu def ko ci misaan alxasanaat yowma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim mu mel ni soxna Aïcha wax na ne ni dañoo xaw a tënku ndax temps bi ñu raw bari na suñu jëlee nag wàll gi nga xam ne ñun moom la ñu farewoo te moo doon ñun ñu jéem a ñëw andil leen leeral lan mooy deret yi jigéen di gis yan ak yan la ak ban temps lay def ak moom nuñ ko mën a ràññee nuñ ko mën a xamee mu mel nii pour tënk lu mel noonu xaj na mën na yomb mën na jafe ndax dañuy faral di wax ni rek jigéen doo dajeek mu toll ci gis baax léeg-léeg gàllankooram problème am dëgg-dëgg mu ngi nekk ci règle yoo xam ne mën na di dajeek moom muy am ay perturbation yuy am te mu xaw ci jaaxle ndax dafa lënkaloo ak jaamu yàlla am bu boobaa nag day am problème ci nan lay def ak loolu kon thème bii thème bu ama am solo la bu jara yaatal la bu jar di nafar waxtu wu ne la ndax léeg-léeg da ngay dem ba ci biir nga mel ni ku gëlamaat ku réer koo xam nooy def kon dina laaj ñu koy nafar saa su ne mu mel ni kon dañuy wax ni addimaul xaarija min al mar'a salasa deret yi génn ci jigéen ci suufam ndax loolu lañ ci jublu ñett la xaydun wa nifaasun wa istixaada règle muy deretu mi nga xam ne moom la ñuy wax deretu baax ak li ñuy tuddee deretu wasin muy deret yoo xam ne ci njuram doom rekk la mën a bàyyeekoo ak beneen bi nga xam ni du benn ci ñaar yooyu waaye terewul fa ñuy jógee koo lay génnee waaye boroom xam-xam yi mën koo tekkee ne feebar lay mën a doon ci nit ki boo xam ne moo ko koy jural mën na nekk nag lu sévère walla lu bañ a sévère ci moom waaye daal bokkul ak deret ya nga xam ne moom mën nañu wax ne lu naturel la dafa baax sax dafa war ci jigéen bi bu ci tolloo mu nekk loo xam ne daf koy gane si ndax yàlla moo ko bindee noonu mu mel ni lépp lu aju ci àtte nag lépp lu aju ci àtte li la deret yooyu di tere ak yi ñu lay may loolu du ñu ci xuus ndax loolu wàll la boo xam ne incha allah suñu doom suñu rakk soxna Fatima Abdallah moom la leen fas yéene àndil suñu waxee nag alxayd dañuy wax ni inna dimaa altabiiya aw inna dimaa annisa baxrun la saaxila lahu walakin bawabaha alulamaau wa haddabuha xatta saar min ashali abwaabil fiq deret yi jigéen di gis mën nga wax ni géej la goog amul tefes ndax jaxasoo gu ci jigéen ñi di faral di jaxasoo waaye nag boroom xam-xam yeeg seen ittewoo xam-xam ci diine rawatina lu nit luy defar jaamu yàlla nit ki tax na wet gu ne càmbar nañ ko jàngat ko ba bokk na tey ci buntu fiq yi gën a yomb xañ na dafay des rek ci ñuy delluwaat ci téere yi di ko nafar waaye wax dëgg tënk nañ ko ci anam yoo xam ne liñ ci leeral ak effort yiñ ci def da nga xam ne dëgg-dëgg yàlla rek moo leen mën a fay yàlla nañu yàlla fayal suñu borom xam-xam yooyu. ñu wax ni kon deret yooyu nga xam ne ñett la bi njëkk ñu war ko waxtaanee muy alxayd alxayd fi luga asayalaan dañuy wax ne foo déggee ñu ne baatu xayd arab tudd ko muy règle bu jigéen di gis boobu mën nañu wax ni mooy luy luy rogaat luy luy luy senn loo xam ne daal day sotteeku waaye du ñu dégg bur bi bu muy joxe kon noonu la deret ji di génnee ci jigéen ji ci suufam deret jooju nag ci istilaax mooy ci diine nag bu koy tekki moom dafay wax ne dimaaun tabiiya tusibu lmara fi ayamin maaluma ida balagat deret la jigéen moo koy gis kon génnee na góor deret la du ndox du beneen liquide waaye deret la tudd comme ni ñu xamee deret tabiiya lu naturel la loo xam ni du feebar waaye noonu la bindoo ci nit ki noonu la ko yàlla mooñaalee moom muy dal kan jigéen kon góor du ko gis waaye ci yan jamono mu ne ay fan yu limu ci ban waxtu saa yu demee ba majeur kon képp koo xam ne commencé ngaa gis deret jooju egg nga kon ci wane ne majeur nga ku majeur nag mooy ki nga xam ne ci diine léppam lu mu def dañ ko koy topp su nekkee yiw bindal nañ ko yiw su nekkee bàkkaar bind nañ bàkkaar mu mel ni kon foofu tam dañuy gis ne wala xadda li aqali sinnin lil xayd wala li aksarihi ala raji li gën a wér ci borom xam-xam yi mooy mënuñu wax ni règle daal warula yées fan yii nit mënula gis deret lu yées fan yii wala ñu ne mënula gis règle lu ëpp fan yii ci li gën a not ci borom xam-xam yi ndax nit ñi tolloowuñu ci nit ñi yemuñu ci kon ci nattuwaay daal ki koy gis ak temps bi muy def ci moom loolu moom du loo xam ne borom xam-xam yi takke nañ ko takk gu wér waaye nag ànd ak loolu yépp terewul am na ñu ci góor-góorlu yegg ci bani su fekkee ne règle la mën nañ koo jàpp ci jigéen bi loo xam ne li ëpp ci ñoom ca la gën a néew du romb ci ñoom ñetti fan su fekkee ne luy bari la bay bari ci ñoom tamit du romb fukki fan ak juróom waaye ànd ak loolu yépp ñenn ñoo takkee noonu waaye ñi ci des dañ ko boyal ne mënuñoo wax ni lii mooy li nga xam ne moom moo ci gën a gàtt waaye tamit ba ci âge bi nga xam ne ci lañ koy gis âge biñ koy gis mënuñu wax ni xat at yii bu ko jigéen tollee rek tàmbali koo gis at yee su fa yeggee rek waratu koo gis foofu tamit jigéen ñi dañ ci wuute ci niñ koy gën a teel a gisee ak ni nga xam ne noonu lañ koy yéex a yéex a bàyyee moo tax borom bi subhanahu wa taala ci biir aaya bi nga xam ne moom la ñuy jàng ci suratu talaaq mu ne wallaa'i ya'isna min almaxiidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallaa'i lam yaxid mu ne jigéen ñi nga xam ne dañoo dem ba toll ci ñàkkatee sax gis deret ndax fekk na romb nañ ko dem nañ ba dem ménopause nga xam ne idda ba ñuy war a jël su fekkee fase am na bu ngeen leen bëggee xool ñetti weer ngeen di xool ak jigéen ñi nga xam ne yeggaguñu ci gis ko maanaam ki gisagul règle ak ki nga xam ne daf koo gis ba gisatu ko ñu ne borom bi subhanahu wa taala joxewul tettal ci ne jigéen bi gis règle maanaam bi gisatul règle mooy bi am 40 ans wala 50 ans wala 60 ans waxul tamit ki ko gisa ki ko gisagul mooy ki nga xam ne moins de 10 ans la daf ko natt rek ci ki ko ki nga xam ne gisatu ko ndax pare na ci ak ki nga xam ne gisagu ko ndax yeggagu ci kon loolu li muy tekki mooy diggante la boo xam ne ku nekk saa yu ñëwee ci yow rek xamal ne jot na ci yow waaye saa yu demee ba nga xam ne gisatuloo ko ci àpp yi nga xam ne âge ba nga toll tam mooy fa nga xam ne fa la yem ak yow mu mel ni ci loolu nag la ñu war a mën a jàngatee xam ne kon règle mën na poser ay problème waaye nattuwaay bi yépp mooy delloo ko ci ne kat bépp jigéen boo xam ne gis na mu génnee ko ci li nga xam ne mooy suufam di kanamam deret boo xam ne daf koy ñëwal ci àpp weer wu nekk ci fan yoo xam ne fan yu limu la yoo xam ne mën na koo natt lu mu yées yées ñetti fan wala boog mu nekk ak moom ba yegg ci fukki fan ak juróom war na jàpp ne lii règle la boo xam ne moom la baaxoo di ko gis waaye nag du nekk kon mbir moo xam ne dañu naan ah xale la teel na lool ci moom wala bokk mag la lii kat ya war a tuta nekk lu muy gis kon foofu lañ koy natt kon xayd boo ko xoolee ci tënk ci sharia xaj na soxna Fatima dina ñëw ci àtte yi waaye amul problème ci yi nga xam ne moom lañ koy ràññalee ci ni muy ganeseeg ni muy demee ci suñ ko tënkee ci ni borom xam-xam yi waxee kon li nga xam ne moo ci topp ci muy beneen deret boobu la ñuy tuddee an nifaas nifaas nag muy deretu wasin dañu wax ni kàddug nifaas su ko arab waxee daf koy jëlee ci na ci an nafas muy féex ak fireeku maanaam mbir mu xat-xat bu nit nekkoon mel ni ku ci génn comme ni ñuy waxee nafasallahu kurbatahu yàlla génnee na ko ci xat-xat ba mu nekkoon ñu ne lu tax ñu ne ndax jigéen bi waxtu bi mu nekkee ëmb dafa nekk ci benn xat-xat ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha kon coono la ay coono la jigéen di nekkee ba ba nga xam ne doom mu ngi juddu foofu dafay mel ni ku nekkoon ci benn xat-xat daal di ciy génn ñu ne foofu la ñuy tëg tëggee baatu an nifaas léegi nag ci istilaax dañuy wax ne nifaas ci boppam muy deretu wasin boobu dimaaun taxruju min al mara inda al wilaada aw maaha aw qablaha bi yawmayni aw salaasa maa talaq ñu ne bépp deret boo xam ne jigéen daf koy gis waaye ban jigéen moo koy gis jigéen bi ëmb kañ la koy gis mën na koo gis bi mu commencé war a am doom nga xam ne mat wi tàmbali na wala sax nag nee nañ dañ ciy boole même bu fekkee ne daf ko commencé gis ñaari fan lu jiitu muy am doom wala sax ñetti fan waaye muy nekk loo xam ne dafay ñëw muy liquide boo xam ne dafay dafay dafay dafay rattax du du du nekk rek comme deret boo xam ne deret bu naturel la kon loolu liñ ciy déggee mooy léeg-léeg ñu ne diw dafay loppanti wala diw de dafa commencé di saigner waaye gisaguñ mais signe yooyu ñuy jàppe ne signe mat la yuy ñëw su fekkee dafa nekk si diggante ñaar ñetti fan yu jiitu wasin bi ànd ak deret loolu dañ koy boole ci li nga xam ne mooy deretu wasin bi ak fan yi nga xam ne nag léegi moo ciy topp foofu tam li ñu mën a wax ci deretu wasin boobu mooy deret la joo xam ni kenn mënu koo nattal waxtu wi nga xam ne mooy waxtu wi gën a néew bi muy def ndax nañu jigéen bi su fekkee ne commencé naa gis deret avant muy am doom ñaari fan wala ñett mu am doom bi mu wàccee ci taabal ji deret ji arrêté gisatul deret benn yoon dara génnatul ci moom loolu mën na koo jàppee ne set na waaye nag terewul war na mën a nekk ak deret jooju muy génn ci moom di génn ci moom ba mu yegg sax nag ci foo xam ne day romb ay fan ba yegg ci ñeent fukki fan li gën a wér ci li borom xam-xam yi wax muy 40 jours ca lay yem ndax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la waxoon ki nga xam ne benn xadis la bu ñu jëlee ci umu salama radiallahu anha qaalat kaanat nufasaau tajlisu ala ahadi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam arbaina yowma mu ne jigéen ñi nga xam ne dañu daan am doom règle bi di ñëw di deret yoo xam ne gi génn ci ñoom daan nañ toog diiru ñeen fukki fan waaye foofu liñ ciy déggee tam mooy ñeen fukki fan yooyu mooy li fekk deret yaa ngi ñëw waaye ci biir ñeent fukki fan yi su deret ji daggee moo xam da ngaa def semaine wala ñaari semaine rek mu jeex wala nga def 30 jours mu jeex fu mu deexee fu mu arrêté rek yow set nga kon bokkul ak li nga xam ne nit ñi bu njëkk loolu lañ doon jàpp mooy li feek matul ñeent fukki fan même boo setee sax pour yow waruloo sangu dañu naan matagul ah jigéenu wasin bees la de amagul ñeent fukki guddi wala amagul ñeent fukki fan te fekk deret moom nekkatu fa deret ji moom fu mu daggee ci biir ginnaaw bi mu amee doom rek set na waaye nag mën na romb ñeent fukki fan yooyu waaye ba tey bu rombee ñeent fukki fan yi tam ci li gën a wér mooy dafa war a sangu ndax loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àppaloon jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy gis règle ndax ñàkkul am na koo xam ne mën na am doom mu am 40 jours te du tax deret ba mu doon gis di nekk deret yoo xam ne day jeex donte le ne am na ñenn ci borom xam-xam ñi ñu ne sax mën na dem ba 60 jours ci deret ji di ñëw waaye nag ci jaamu yàllaam foofa li ñu koy digal mooy 40 jours yi bu matee na jàpp ne leneen la muy gis dafay duggaat ci cadre beneen deret boobu nga xam ne moom la ñuy wax istihaada kon li gën mooy mu koy laabal ci waxtu julleem yépp ak jaamu yàlla yi ko deret doon tere daal dootu ko ko tereeti ndekam mat na 40 jours loolu kon ba tey moom la ñu al imam tirmisi di leeralal mu ne waqad ajmaa ahlul ilmi min ashaabi nabiyi wa taabiina wa man tabiahum ala anna nufasa tadau salata arbaina yowma illa an tara tuhra qabla dalika fa innama tagtasilu wa tusalli fa ida raat dama bada al arbain qaala ahmadu wa shafiiyu wa sufyaan thawri wa bnu almubarak wa isxaaq tagtasilu wa tusalli salaa gis nga kon foofu imaam Tirmisi nee na mboolem borom xam-xam yi ñu leen dimal li ñu xam ci ñoom moo di ne jigéen ju wasin daal mën na toog 40 jours li feek mu ngi gis deret jàpp ne loolu deretu wasin la waaye su xasee mat 40 jours na sangu te julli ñu ne même bu rombee 40 jours deret di ñëw tamit mu ne mboolem ñi nga xam ne wax na leen ci boromi xam-xam dañu ne na sangu te julli kon foofu la ñuy defee istidlaal te xadis boobu mu ngi ci sunanu Tirmisi te dañ ko wéral kon boobu tam ñu ñu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax léegi nag pour bañ a yàgg ci loolu nga xam ne moom la ñuy wax ci deretul nufa naf nifaas soxna Fatima dina ñëw ci atte yi nga xam ne mooy waral ak ci tere ñu dugg ci listixaada al istixaada hiya istimraaru nuzuli dam wa jarayaanuhu fi gayri awaanihi yaani alxayd wa nifaas ñu ne istixaada nag mooy deret yoo xam ne day sotteeku ci jigéen bi ci anam boo xam ne daal wax dëgg sax du waxtu wam waroon a ñëw du règle du deretu wasin waaye daal deret la joo xam ne daal dafa mel ni jigéen bi farul tàqalikook moom yaakaar naa ne sunu gynécologue bi bu ñëwee ak tey ni jamono tëddee ci méthode yi nga xam ne nit ñi ña nga ca dugg léegi ci plan yu ñuy def am na ñoo xam ne dafa mel ni si seen dund sax tàqaletu ko ñoo deret yu ñuy gis saa yu nekk muy ñëw ci ñoom kon loolu day duggaale ci àtte istixaaba ñuy jëlee nag ci benn xadis boo xam ne xamnatu bintu jaxshin di rakk wala boog sœur ci zeynab bint jaxsh moo ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko diis daal moom problème boobu daf ko am te mooy dafay gis deret lu bari lool lu mën a yàgg lool tam ak moom bi mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ni kon na nga jàpp ne loolu daal dafa nekk feebar ci yow surtout feebar boo xam ne seytaane moo koy moo koy def ci nit kon na nga jàpp ne sa règle daal juróom benni fan la wala juróom ñaar bu boobaa leneen li des yépp jàppal ne feebar la nga sangu continuer sa jaamu yàlla loolu bi nga xamee ni wax na ko ci loolu la nekk noonu la continuer di ko dundee ci àtte bi nga xam ne moom la ko yónent bi sallallahu alayhi wasallam jox loolu tamit ci la ñuy mën a sukkandiku ñun ci su fekkee ne deret dafa te tàqalikoo nit ki muy lu muy gis rek même bu fekkee ne du règle wala du deretu wasin waaye nag bu ñu ñëwee ci ni nga xam ne borom xam-xam yi dañ ko séddalee al mustahaada muy jigéen ji koy gis jigéen ji nga xam ne day faral di gis deret rek dañu ne ñoom ñetti jigéen ñoo nekk ci kanam ci feebar bi am na koo xam ne dañ koy wax ne mu'taada jigéen joo xam ni al mu'taada lañ koy wax mooy ki nga xam ne allati laha aada taarifuha moom dafa am période bu muy doon gis règle bu mu xam ay fan yu leer naññ yoo xam ne moom xam na ne daal 6 7 jours du ko passé mooy règle am mais léegi dem na ba di gis lu ëpp loolu muy nekk deret yuy sotteeku kooku moo ataada la am ku ñoo xam ne dañ koy waxee almumayiza kooku moom dañu naan hiya allati tumayizu damma dammal istihaada aw dammal xayda min dammil istihaada kooku mooy ki nga xam ne dafa ràññee moom même bu xamul sax fan yi xàmmee na ne daal am na jour yoo xam ne li muy gis ci deret façon bi mu mel couleur bu mu mel signe yi muy joxe signe ñu règle la mais ginnaaw gi am na changement buy am ci deret ji donte leen ne mu ngi continuer mais yëgul ne nuroo naag deret jëm doon njëkk a gis kooku la ñuy wax mu mayisa kooku dafa ràññee deretam am koo xam ne nag mu taxayira la dafa nekk ci am njaaxle xamul ay fanam mënut a ràññee deret kooku tam am na ay atteem suñu ñëwee ci ki ñu tuddee almu'tada moom dafa baaxoo xam na ay période am waxtu bi mu koy gis ci weer wi daf koy mën a natt te loolu mu am solo ndax bari na jigéen joo xam ne sax dafay wann lor dañ naan ko kañ nga mujjee gis say règle su fekkee ne nag dafa mel ni maam jaara du ca jàpp dara mën naa joxe sax waxtu woo xam ne mooy tax bu ëllëgee mu naan wann naa sama weer ak romb naa bis ba waroon a wasine fekk dat ba mu joxe woon ne mooy waxtu ba mu mujjee gis règle foofu la jaxasee mbir yi kon jigéen dafay am solo muy xam su mënul mu jël calendrier sax di di di di noté di xam weer wii ci fan yii kañ la règle bi commencé ak fan la toll loolu lu lu ama am solo la bañ a bàyyi noonu kese ndax dafa aju tam ci sa jaamu yàlla jigéen ju mel noonu nga xam ne moom deret ji mën nañ wax ni aada la weer wu nekk dina ci gis juróomi fan su juróomi fan yi jeexee ci la deretam daan jeex tàkk mu sangu commencé jaamu yàllaam ba baa muy demaat ba yeggaat ci date bu mu ko gisee woon mën a avancer benn fan wala retard ñaari fan waaye du ko kii mu gisaat juróomi fan mais mu dem ba benn jamono nag loolu am perturbation mu continuer ñu ne ko mel noonu fi muy sukkandiku rek mooy turaddu ila aadatiha kooku moom dañu naan ko jàppal ca la nga amoon muy aada nga moom ko muy sa juróomi fan wala sa juróom benn fan yi nga baaxoo woon di ko gis règle loola mooy say règle comme même bu fekkee ne weer bi yaa ngi continuer di ko gis tam sa juróom benn fan yi nga xamoon ne moom ci nga daan indisposé mu mat sëkk ci weer bi daan commencé le 5 jàpp le 11 jëlal loolu muy juróom benn fan yeneen yi des xamal ne set nga ndax dañuy jël ci dalil ci xadisu ya aïcha radiallahu anha qaalat inna umma habiba bint jahshin sakat ila rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam fa qaala laha imkusi qadra ma kaanat taxbisuki xaydatuki summa igtasili bi mu ko jooytoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy umu habiba muy xim na boobu ñu waxoon mu koy deret ji ni muy ñëwee daf ne ko jàppal la nga naan gis comme règle ci ay fan bu matee rek bul jàppati leneen loo gis tamit du la tere sangu sangul nga konti say say jaamu yàlla fa kaanat tatasi inda kulli salaa waaye nag fii liñ ci bëgg a leeral mooy moom da daan def waxtu wu mu jot rek day mel ni kuy sangu farataam dem sangu jàpp julli loolu benn àtte la ci àtte yi waxtu bu jot nga sangul ko benn àtte la ci àtte yi waaye comme maragal ba tey dugg ci àtte yi ñu ñëw ci ni nga gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam delloo ki nga xam ne mooy Ummu Habib ci ay fanam ndax dafa xam ne daan na am fan yu toll nii suñu ñëwee nag ci al mumayyiza mooy ki ràññee ki nga xam ne moom dafa ràññee deret ji ni muy mel couleur bi muy joxe kooku nag ni ñuy def mooy ñu xam ne moom kat comme ràññee na deret ji xam na couleur bi muy am wala métit yi mu daan ànd ak wala signe yi nga xam ne daal deret ji lay ànd ak waxtu wu ne kooku dañ naan ko saa yoo xamee ne signe yooyu nga daan gis ci deret gisatuloo ko même bu deret bi continuer di ñëw jàppal ne fa signe yooyu yemoon ak couleur deret ba ak façon ba nga xàmmee sa deret loola mooy say règle leneen lu ko romb rek feebar lay doon boobu tam dañ ci gis حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان آخر فتوضئي وصلي bi mu ñëwee di joytu yonent bi sallallahu alayhi wasallam perturbation bi am ci deret yi mu gis daf ne ko bu dee règle la de règle moom deret la joo xam ne dafa ñuul nu nu rowut ak deretu maanaam deret bu bu naturel da ngay gis ne moo gën a ñuul moo am na tamit odeur bu muy dégager am na tamit nu mu nu mu mel noo xam ne daal bokkul ak yeneen deret yi su dee nag gis nga ci sa biir deret ji ngay gis ay fan yoo xam ne deret ji moo gën a foncé am na odeur wala am na métit boo yëgaale loola jàppal ne mooy fani règle yi leneen di ciy topp rek sangul nga continuer sa jaamu yàlla muy say julli kon foofu la ñuy yem ci kooku nga xam ne moom la ñu tuddee almutamayiza léegi nag ñu ñëw ci almutaxayira mooy kooku nga xam ne dem na ba jànnaxe ci ay mbiram yallati la aadata laha wala tamyiza aw laha aada wa nasiyatha mooy ki nga xam ne amul aada ndax moom naka jekk nee na depuis muy indisposé ak léegi mënul xam ay fanam ñaata la toll waaye tamit ràññeewul xamul deretu règle daal lan moo ko wuutaleeg beneen deret bu muy gis wala sax nag mën na am xamoon na ko waaye fàtte na ko ku mel ni nag dañuy wax ni ci biir weer wi toujours day tànn juróom-benn wala juróom-ñaari fan ndax li ëpp ci jigéen ñi ci fan yow toll noonu la ñu koy gis ñu ëpp ci jigéen ñi juróom-benni fan wala juróom-ñaari fan ci la ñuy gis règle kon weer wu nekk loola la ciy génnee juróom-ñaari fan wala juróom-benni fan bu boobaa la des yëpp daf koy daal di day sangu commencé continuer jaamu yàllaam yi nga xam ne moom la arrêté woon ndax ngant li mu amoon mu continuer di def li ko yàlla sant mu mel ni kon mu taxayira boobu nag. moom la borom xam-xam yi ba tey séddalewaat ci ñetti xaaj ndax dañuy wax ne dafa am mutaxayira boo xam ni naasiyatul mawdi aalimatul adat moom xamul ci weer wi kañ la daan indisposé waaye nag xam na ñaata fan la daan doon ñu ne ku mel noonu moom amul problème na jàpp fan ya mu daan toll ci weer wi wu nekk rek su tàmbalee mu jël fan yu toll noonu jàpp ne loolu mooy réglam wala boog mu nekk koo xam ne dafay delluwaat ci ñi ko gën a jege si fameem ci ay mbokkam ci ay jege ñaaleem tàntaam yaayam ñooñu mu nekk ak seen fan yi nga xam ne moom moo tolloo woon nag yi ñuy indisposé wala waxtu yi ñuy indisposé loolu rek lay génnee ci fan yi muy gis deretam su ko génnee li ci def dafay laab am nag keneen koo xam ne dañ koy wax naasiyatul adat aalimatul mawdi moom contraire kee la moom xamul ni lim bi toll waaye nag xam na fi mu ko daan gis ci weer bi ci digg weer bi la ko daan gis wala ci commencement bi mais problème bi mooy ñaata fan la daan doon loolu moom moo desee leer ci boppam ku mel noonu tam toujours commencement weer wi lay tàmbali ci weer bu nekk mu jël ci lu tolloog fan yi nga xam ne moom la jigéen ñi di baaxoo di gis règle ndax xamul li nga xam ne moom mooy lim bi ni mu daan toll kon mu jël juróom-benn wala juróom-ñaari fan li ëpp ci li jigéen ñi di gis comme àtte bi nga xam ne moom la ñu jox kale ñetteelu nit ki nag nga xam ne moo ci mujj mooy naasiyatul mawdi wala adat kii moom dafa fàtte li nga xam ne mooy temps waxtu bi mu daan nekk ci weer wi ak ni mu daan toll ku mel noonu nag. mooy ki nga xam ni li nga xam ne moom la ci borom xam xam yi tënk mooy dafay nekk koo xam ne dañu koy delloowaat ci li jigéen ñi ëpp di gis muy juróom-ñaari fan yi ñuy gis règle wala juróom-benni fan weer wu nekk moom la ciy génnee ndax moom xamatul couleuru deret nu muy mel xamatul nan la période am daan fan la daan commencé ci weer wi xamu daan nu mu doon toll kon dañ koy delloo ci ne moom dafay daal di ànd ak ñi nga xam ne moo gën a not ci jigéen ñi mu juróom benni fan wala juróom ñaari fan yi ñuy gis règle kon mu mel ni deretu yi nga xam ne mooy gane si jigéen ci waxtu wu mu mën a doon moo xam dafa nekk règle boo xam ne daf koy gis moo xam dafa nekk deretu wasin moo xam dafa nekk deretu feebar benn bu ci nekk am na ñu ko borom xam-xam jàngate ci li nga xam ne noonu lañ ko war a ràññee ak noonu lañ ko war a jàppee xañ na fi ñuy tëjee suñu kàddu ci li nga xam ne mooy li ñuy junj ci jeextalu waxtu wi mooy li ñuy wax muy léeg-léeg asaqt muy avortement muy jigéen ëmb na ëmb bi matagul doom ji ñëw na bu boobaa du ñàkk deret joo xam ne daf koy gunge ndax deretu wasin lay doon waral déet foofu ci àtte bi nga xam ne moom la borom xam-xam yu wax su fekkee ne ku jigéen ki li mu andi avortement bi dafa fekk romb na li ñuy wax quatre-vingt-un jours maanaam de dépassé na ñetti maanaam ci ci diggante ñaari weer dugg ñetteelu weeram ñu ne foofa su fekkee ne avortement dafa romb diggante boobu muy 81 jours kon lépp lu ñëw ci deret ju muy gis ginnaaw avortement boobu moog deretu wasin ñooy bokk atti waaye su fekkee ne tam daf ko gis maanaam dafa avorté lu yées 81 jours bu boobaa deret ji deretu aada la rek même bu fekkee ne am na lu génn loolu dañuy jàpp ne rek ah génn na waaye deret ji ñëw di ko gunge. loolu mënu koo jàppeeti deretu wasin ñu ne ci li gën a wér te baax na ñi nga xam ne ñoom ñoo ko génnee ñu wax ko mooy bu fekkee ne li mu andi joxe na benn forme buy wane jëmm buy wane ne lii tàmbali na woon pour nekk dara waaye su fekkee ne ay lumb rek la yoo xam ne amul lu ñu mën a tàqale ci ne lii moo waroon nekk bopp wala moom waroon a nekk ci cëri nit feeñu ci bu boobaa tam loola duñ ko considéré kon avortement boobu du tax jigéen bi ne deret ji may gis deretu wasin la déedéet kon faawu mu nekk loo xam ne dafay romb 81 jours wala mu andi jëmm ju ñu mën a nataale ne lii kat naroon na doon nit ci melokaan bi mu mel loolu moom deret jooju deretu wasin lay doon waaye su fekkee ne yées na 81 jours wala dafa nekk ay lumb rek te formé wul benn jëmm boobaa aada la deret la rek comme yeneen deret yi du ko teree topp jaamu yàlla am kon ci biir loolu la ñuy jéggalu naqulu qawli hada wa nastagfirullah li wa lakum wa li saa'iri almuslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
rahmatullahi taala wa barakatuh jasakila xayran soxna jaara ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo ànd déggandoo ko muy loo xam ne tamit moom lañ doon xaar ci moom di leeral lépp ci suñu mbirum jaamu yàlla muy li nga xam ne yàlla daf ko bind ak ñun mu ànd ak ñun muy ay mbaax boo xam ne jigéen ji daf koy war a gis par weer wala deret boo xam ne comme ni mu ko waxee jigéen ji bu amee doom ba pare daf koy topp wala tamit loo xam ne tamit feebar moo koy waral loolu yépp tamit soxna Jaara leeral na ko ci biir waxtaanam leeral na li nga xamante ni mooy mbaax lan mooy àtteem ci lislaam ndax incha allah xam naa sama doom ji bu jëlee kàddoom moom it dina ko gën a leeral waaye mu leeral tamit lu am solo li mu mujjee rek daanaka di foofu laay gën a foofu laay gën a waxee ndax mooy dafa am solo lépp am na solo mais macha allah am na solo mooy feebar yi nga xam tamit ci wàllu deret dafay dal jigéen ndax ku nekk xam nga ne boo gisee ma wax loolu mooy régal ku nekk xam na ko ku nekk xam na tamit. la ca aju yépp deretu wasin tamit leeral na ko ak fa nga xam ne fa la fa la yem muy ñeent fukki guddi yi nga xam ne du ko weesu mu ne am na sax boroom xam-xam ñoo xam dem nañu ba guddal ba ne mën na am sax ñaari weer waaye li gën a wóor mooy ñeent fukki guddi tey loolu di ay lënt yoo xam toujours ñun dañ ciy am problème ndax da ngay gis koo xam ne sax dafa am doom mais dafay set ba mu leer ko ne set na mais du bëgg a jaamu yàlla tant que ñeent fukki guddi yooyu matul. te leeral na ci biir waxam mu ni ñeent fukki guddi yooyu mën na ko yées maanaam boo deret bu amee doom ba pare mën naa am sax ñaari fan wala ñetti fan mu set waaye ñun toujours li ci gën a bari rek li ëpp dañuy tënku naan dina mat ñeent fukki guddi wala bu ko amul amul boruta jaamu yàlla tey jaamu yàlla nekk loo xam ne yàlla moo ko moom moo ko àtte moo teg moo yónni yonte bi sallallahu alayhi wa sallam tamit mu jàngal ñu fiq borom xam-xam itam leeral ko kon ñu war ci dellu bu baax a baax xam tamit fu ñuy teg suñu tànk mu leeral tamit li nga xam ne mooy deretu maanaam feebar mooy istihaada ci ñetti ñetti ñetti xaaj yi nga xam ne moom lay sëddalikoo mooy ki nga xam ne si xàmmee na mooy ki ko baaxoo nit ki nga xam ne li mu baaxoo gis bu dee juróom-benni fana bu dee ñetti fana bu dee ñeenti fana bu fekkee dafa dem ba feebar boobu dal ko moom dafay daal di delluwaat rek ci ci cosaanam mooy lan lan la doon jël juróom-benni fanam la doon jël day jël juróom-benni fanam liy des mu jàpp ne kon feebar la. beneen bi ci des mooy ki nga xam dafa xàmmee dafa ràññee moom xa ràm- ràññee na lan mooy deret yi lii deretu régalam nii la doon mel tey nag weesu na ko du lii kon mu xam ni deretu régal ji bu ci ku ko xasee génn mel na beneen couleur kon dafay daal di jël lii lii feebar la mu dem faju ji waaye du ko yàqal dara ci ay jaamu yàlla mu nekk be- beneen bi nag li nekk koo xam ne tamit ku ku ku jafe ay mbir la moom mooy almutaxayira mooy ki nga xam ne si moom xàmmeewul xàmmeewul deretam waaye xàmmeewul ay sax lenn la ca xàmmeewul loolu nag dafa nekk ab soññe boo xam ne si mu leeral na ko nit tamit dafa war a soñ sonn ci ay mbiru jaamu yàlla ndax dem ba nga xam ne xamoo yow sa deret kañ sa baax ñaata fan la waaye xàmmeewoo sax couleur deret yi waaye xàmmeewoo ca lenn ak lenn loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax jaamu yàlla dafa nekk loo xam nit ki ku ci war a ku lépp dafa war a leer ci ci ci boppam kon xam naa ne du ñu guddal sax ndax wax ci dafa am solo te arab dafay wax naan ndox bu leeree ba pare dañ naan sax laatu kaddiri safwa maanaam dara bu leeree ba pare boo ci toppee ñu ne di ko yëngal di ko yëngalaat sax ñu ne mën naa dem ba ba lëntalaat ko te macha allah fa jazahallah xayran wax ci leer na ñun ñëpp am nañ ci ay njariñ yàlla na ko yàlla fay kon lu ñu def lu dul daal di jàll ci suñu doom bi nga xam ne moo ci des muy soxna Fatima Abdallah Touré.